asalaamaaleykum mbokk yi. waaw ah, nee naa la cent sax bu ma ko dee am wala tey téeméer rek daf moom mu koy mel. Hmm. ndeysaan nga nekk koo xam ne tey mun nañ ne yaa njëkk indi couronne bi fii Géejawaay si say biir wax nga ne dañ la war a respecté lan moo xew ma nga ne dañ la war a respecté. ah mais xaw ma lu xew ni ko yëgee rek laa ko kon doomu aadama bu toog rek waxul nit lu ñaaw deful nit lu ñaaw ñu yàq deram <laughs> looloo xew. loolu kese la moo tax ma ne doomu adama yi dañuy respecté nit ñi bu fekk koo xamante ne mosoo ko gis muy def lu bon mosoo ko gis mu muy jëfin jëfin jumboon wala mu koy waxtaanee wala ko defee nga bëgg ko yàq ay njabootam yàquñu ko ay mbokkam yàquñu ko yow mi nga xam ne surtout yow dara lu lu baax teraanga nga bëgg koo yàqal day yomb quand même koo mënta yàq bu ko jéem a yàq te boo ko yàqee yaa ciy des jaru loolu moo tax ma ne nañu respecté rek. waaw te foogkonte rek la joxe cër ndax li ma doon yàlla def na ma ko pare baax def naa ko ba pare bonuma ndax bugguma bon li sëñ mu taxaa daan wax rek baax sonn bon sonn kon na fexe baax te man ci loolu rek lay dox amay waajur yu baax am njaboot goo xamante ne wax dëgg yàlla famille bu ma nekk famille bu baax la lu baax rek ci lay dox mhm. léegi yow tey gars yi comme que bi coow li bëri bi nga joxe mooy li fi indi woon Balla dem na ngénte demoon da nga tukki woon da nga jàppoon lan moo xewoon lan moo la tënkoon. non man du du lu may expliquer ak doomu aadama lii moom a tënk wala lay kenn amul maqaama ma koy waxal naan lii moo tax wala nangam non waaw man may magum jëm di kilifa ay nit di ma laaj naa ma lii ak nanga wala da nga war a def na ay naafiq di wax da war a dem fii da nga yow yebaate rek Sénégal dana muy loolu rek mhm. am ñoom nay dof lañu sax doo leen sax waa waaw ñenn ñi c'est des vauriens yoo xamante ne yàlla na ma yàlla jéggal di wax yéen waxi da nga leen di bàyyi yéen te mhm. jamono nga sentir ne wax ji bëri ci man ma ba ma juddoo rek coow la man damaa judd ci coow nekk ci làmb ci coow coow amu fi ñoom ñoo bëgg coow buzz mais man sama buzz maa ko lijjanti sama bopp man buzzu làmb laay wut. ak buzz boo xamante ne damay fexe daan nit ki loolu mooy suma buzz ak suma coow waaye leneen ay buzz yoo xamante ne moom jàpp man leneen luy buzz ndax man yëfu mbër laay def moo ci noppee nag ànd ak sumay xarit ànd ak sumay nit waaw. ngay waajal combat tamit sa diggante ak nga dem ba ci biir ñu ne da ngaa blessé lan lañ mën a xaar ci yow troisième round yaa Eumeu Sène mu daan la deux fois nga war a jëli revanche tey lan nga war a wax say supporters sa diggante ak ëmb nee nañ moom lañ gën a soxla tey Balla luñ mën a xaar ci moom. Ah, di di wax samay supporters rek maa ngi leen nuyu kenn ku nekk fu mu nekk turam santam ñi nga xamante ne bëgg nañ Balla Gaye numéro 2 am njàkkare ci waxi ñaaw yi ak ci jëfin ju bon ji maa ngi leen xamal ne rek man Omar Sakho doomu aadama laat te musuma sekk ak nit lu bon nit duma fay lu baax nit duma defal lu baax moo koy fay lu bon. képp ku ma defal lu baax rek fay naa la lu baax ba wis sa ne ne coow li mënut a ñàkk àdduna day toll foo xamante ne ku baax sonn ku baax bari noonu donc ci moment bii ñu toll nag di leen xamal ne rek lépp lu waay ci wax ci man lu ne Omar dafa baax dafa yitte dafa sëkk ak ñëpp jàmm waxul dëgg parce que moom laa yéene ñëpp mooy ma sama bopp dara falu ma bopp dara yàlla mi am di maye sax dafa def ñii nekk milliardaire ñii am xam-xam ñii mën a jàngal alxuraan ñii di jàng école ñii di jàng français ñi nekk ay lutteurs ñi nekk ay mbër ñi nekk ay footballeur ñi nekk leneen yàlla mooy séddale mbiram man du ci dara mais ma leen di seedal na rek que ni man du ma wax lu dëgg dugguma ci ay nekkuma ci ay détail li may wax mooy samay supporters ñu ngi may xaar. mam ci lu ma nekkoon xëy na yàlla doon mam blessure jàppaguñu combat bi nag incha allah buñ ko jàppee daal ñu nekk ci luñ nekkoon rek fexe am ndam incha allahu bëggalee ko suñu supporter ak suñu am di jàmm. tey boo amee conseil boo jox xale yi kon lan nga leen di wax. Euh, bu fekkee man li ma def man micro taxul ñëpp xam ma ñëpp ràññee ma micro bii. nekkul lu lu baax luñ ci war a wax war koo wax pas yàqante dar pas xasante loolul wax nit ki boo jàkkaarloog moom bu ko wax ci ay loo xamante ne leer na leer yàlla ab yàq la te amul benn njëriñ man lu ma wax buñ jàkkaarloo du la ko wax feneen ci àll loolu jëw la loolu dul wax nit ki. doo joor ay wax. non maanaam loolu dul wax ki jàkkaarloo moom boo ko waxee ci àll bi walla nga wax ci micro loolu jëw la te jëw baaxul doomu aadama kenn du ko jëw. nañ nañu rafetal xol yi xam nga rafetal xol yi bu baax a baax yéenante ñëpp jàmm yàlla na yàlla defal ñëpp jàmm ci barke yonent bi. yaa mais si say biir wax nga ne tey sa ay moo la waroon wax sàmba alaar nga wala say fami mais keneen ku la wax du la saf. ah waaw. nga jàpp ne yow maanaam Samba alaar bi sa moo la en fait du tamit déglu naa quand même dof. amul leen loo xamante ne dama koy umpale ci nit ak ñoo xamante ne sax wax naa ko sànq te bëgguma ci delluwaat loo wax fii ba waxaat ko fii moog géré yam loolu nit du ko wax nit ko bokkuloon ndey bokkul moom bàyyi bokkuloon dara dox daje nga dox daje nga ngeen bokk benn métier barab bi ngeen war a jàngi métier ñu xamante fa yàlla dogal tey ñu bokk lu ñuy def ñu warante yéenañ ci jàmm ah yéen di jàmm bu ëpp solo mooy nit jàppale la ba nga fexee yow am teraanga loolu mooy yéene jàmm boo amee teraanga mën a tera say waajur man sama turandoo loolu la mën a wax jàppale gi ma lay jàppale dama lay jàppale ngir nga mën a teraanga mooy bëri di wala ngay dem entraînement ma lay jàppale wala ñuy contact ma lay taxaw loolu mooy teraanga teraanga mënut a weesu loolu leneen nag ay détails la parce que nit bu fekkee xartoo ak moom rek fréquenté woo leen àndoo leen dem fu ne bu amee jot ñëwal la bu amul jot nga war ko mën a comprendre comprendre di wax leneen loolu dafa garaaw donc moo tax moo la lool parce que ni ma ko déggee rek noonu laa ko tontoo quoi loolu la. ñu ne VIP yi da ngeen a commencé yàq sarmu làmb bu njëkk ba euh, VIP duñ gisante mais léegi dañuy gis chaque fois seen daje yéenay bokk di bokk loolu du yàq sarmu làmb comme ni leen supporters yi wala war a nammee dootuñ leen ko nammee. fan lañu VIP yi di dajale fe. dara daje ngeen. waaw drapeau chef de la ñu wax. drapeau Sénégal chef de l'État pour bëggal Sénégalais loolu mbër yëpp yàgg nañ fa dem pël mbër yëpp yàgg nañ fa dem loolu loolu dañuy wane tey ñun yàqu ñu làmb dañuy wone exemple bu baax mais pas bu bon wala bu salte bu ñu bëree ba pare kenn ku nekk si ñun daan na moromam xam nga kenn du gis sa morom di xuddal xuddal di mer ak di funki du kenn xam nga ci dugg ak moom loolu du sport sport bu jeexee jeex na boo ñëwee fekk pour bëggal seen supporter supporteru Balla Gaye fa supporteru Modou Lo fa Eumeu Sène Boy Niang Gris Bordeaux Tapha Tine Bombardier kenn ku nekk say supporter fa parce que boo duggee tous ñu yuux wala ñu bégal loolu pour Sénégal la c'est normal bu bu ñu war a reyante du ñu reyante sama combat Gris Bordeaux anam waaw lan lañ def combat bu gën a métti saison. am njaay joxul Diop. alors kon loolu dara loolu en fait làmb ñun dañ koy defar parce que dañoo fekk mu defaru ba pare. yéen kay lii nii lii nii maanaam bu ko leeree ne champion bu mag bi moo moo mbër bu mag bi moo ciy wax nga dem dégg ko koo xamante ne wax dëgg yàlla tollagul fa sa mbër ma mbër ba toll moom day jàpp ne champion la ndax mbër bu mag ba moo ca wax kon moom bu ci waxee champion la lii mooy trompé gars yi waaw day trompé ñu bari nag moom mooy trompé no bu baax day trompé gars yi te gars nañu def attention ci lii dalay yàqal da lay defaral waaw te boo ci xasee ba jum gaay dañ la pardonné yàlla nañ ci yàlla musal nag bon da ci wax man daal nee la nañ ci wax lu baax rek loolu moom solo waaw. mais ñëwagoo si loo indi de supporter loo leen di indi sa diggante ak ëmma. waaw mais moom laa lay de ñu ngi si lu ñu war a nekk nekk ci kon jàppaguñ dat fexe incha allahu buñ ci yàlla yóbbu ak jàmm yàlla mañ ci ndam te yàlla nañ ci may ndam incha allah mu neex yàlla suñu borom. Balla def ne woon moo Boy Niang ku daan seeti sa yaay na moment boobu temps amul woon mu jógee màkk occasion boobu nga am dem def ko benn yoon comme que waxoon nga ko. waa mais yàlla moom gis nga li muy xam nga ni naan jaam ak pexem yàlla ak dogalam xam nga koy wax mosuma jàpp ne moom sax daf may daan xalaatu ma ko sax waa yàlla dogal na tey moom daan na ma ma dem seeti yaam tey yaam daf ma bëgg këram ba mu fa duggee tout le monde am na ñoom ñu ngi ci biir kër gi sax laa lox Balla Gaye la ñuy supporté kon donc làmb da ngay dëkk nit sax muy supporter keneen te pourtant yéen ñëpp ay mbër ngeen làmb defarul làmb dafay defaru maanaam defaru ci la ñëpp di defaroo làmb dafay defar ay nit kon nit ñi war nañ cee defaru làmb day jàppale nit nit war na jàppale làmb VIP amul fenn yéen a moo de VIP ci nit ñi lañ ko ko déggee de gisoo tey Balla Gaye ne VIP laa gisoo na Eumeu Sène ne VIP laa gisoo na Modou Lo mu ne VIP la gars yi ñoo jël ne mbëru VIP yi ñun ñëpp ay mbër lañ ah mbëri nag deyoo yi suñu borom moo koy def kenn ku nekk am na lu la yàlla may loolu kese la. ay ca kon maa ngi lay jaajëfal di la kontaanee ma bàyyi la ak suñu mbokk internet yi seen lamb. maa ngi bëggee ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm samay supporters yi su may am di jàmm yi fépp fu ñu mën di nekk maa ngi leen wax daal maa ngi leen di bëggee saa su dina ñaan a jàmm jaajëf. ayca jërë ngeen jëf ma leen di ñaanal jàmm di leen jox dig daje si yeneen daanaan yeneen champion merci beaucoup.